suara makkiya la comme makkiya la nag ni saari makka yi di waxee dana ko waxee de tawxiid bu saf sàpp rek dana jàngale ay yenant nag bu baax a baax laal ci yenant yi laal bu dëgër ma bismillahi rahmaani xaa siim miim ñi bëgg yoon wi gën yomb dañuy wax ne allahu alam bi muraadihi bi zalika rek yàlla xam lim namm ci xaraf yooyu le ndax sayda abubakar saddiq daf na inna li kulli kitaabin sirran wa sirrul qur'ani fil muqattaat nag mooy alif miim yeeg alif laam raa ah, miim saad yeeg taafa yaayin saad yeeg taasim yeeg yooyu nee na téere boo gis day am secret secret téere bii nag mooy yooyu ba tax ñenn ñi bàyyi foofu waaye sag ñàkk kaa xam itam ah bu mu tax ngeen a xamu ko ndax alul ishaaraat ñoom dañu jàpp ne nit yàlla mën na ko kaa xamal ci li kasu dégg nga de ndax ñoom ci ñoom dangay dégg ñu wax ne toit gi day junj ñi nga xam ne dañuy naaw jëm ci yàlla siin gi day junj ñi nga xam ne dañuy dox jëm ci yàlla dox bu gaaw miim gi ba tey day tegteel loolu bu fekkee ku demee ni imaam Junaydi lim ci wax nga xam ne moo njiitu kuréel googu may wax moom daf ne paa gi mooy junj yoonu ñi nga xam ne dañuy tuub jëm ci yàlla siin gi mooy junj mbégte xaarif yi ci lef àgg bi ñu àgg ci yàlla miim gi nag mooy palaasu ñi nga xam ne dañu sopp yàlla te jege ko bëri na yi isaarat ci jox boo demee ci arais araïs wala ruuxul bayaan wala kiimatim nii sax euh, baxrul madid bi le dañ ciy wax wax yu gudd daal wax yu gudd sax nag waaw kenn ku ci ne ak fa ci sa dimension toll ak na ko waxee rek noonu rek la waaye ñàkk kaa xam nag yàqul juli nag wax dëgg yàlla boo ko xamee nag te muy dëgg ci yow mën na laa yokk nag wax dëgg yàlla te ay baat yoo xam ne ah dégg gis noonu nag ñii woowee sëriñ yi loo ne mën nañ la ko caa wax de waaw waaw waaw waaw ñii yi lu ne mën nañ la ko wax ci baat yooyu ndax da gis ñu dugg duggaale ci seen i biir ñaan te suñ la waxee rek da ngay lañ la wax ma kon sax ñàkk kaa xam nag bu mu tax nga ne wax lu kenn xamul de aha tilka aaya yi ñuy bëgg a jàng ayatul kitaabi mooy aaya alquran yi almubin yay aji leeral bàyyil xel na saar wi ne dana wax ci Moussa <laughs> yént yàlla Moussa ak Firawna dana tëggaat seen film fii laallaka amaane yow Moustapha baaqiun aji alak nga nafsaka sa boppu yaa ngi nii añetoo réeratoo yaa ngi bëgg a dee ak stress ngir lan seen ñàkk gëm gii bu mu la teree añ bu mu la teree reer la nga war a def def ko rek te génn ca li ci des ci loxo yàlla ne ah li ko yóbbee stress bi mooy allah yakunu ci ñàkk a nekk gi ñu ñàkk a nekk ñoom yéeféer yi mu'miniin di way gëm seen ñàkk gëm gi de moo tax mënutoo añ bu baax mënutoo añ bu baax mënutoo sol lu baax yàlla nag ne nii nu mel man la neex su ma neexoon ma wan leen miracle boo xam ne dañuy gëm léegi mbaa nu dee léegi léegi léegi léegi waaye maa ko bëggee nii nañu doxee ndànk nii rek dégg wax baax inna sa bu ñu neexoon nun yàlla nu nazil ñu wàccee alayhim ci kaw gaa yii bañ a gëm di lu mina samaa i bàyyi koo ci asamaan ñu wàcce fa aayatan benn xeetu kéemaan fa zallat danañu sax wala nga ne danañu mujj da de mujj na xaadiin mbir moom ñuy woy toroxlul laa ñeel kéemaan ba lu koy toroxlul mu ne xanaa aanaaquhum seen loos ya ngir ragal gañ koy ragal ak tiit gañ koy tiit ndeysaan la sëñ Babacar Si radiyallaahu anhu daan wax nee na ku ragalu yàlla da ngaa ñàkk jom waaye bind loo ragal dëgg ku ragalu yàlla nee da ngaa ñàkk jom de waaye ragal ndax nit moom boo ko tegee lu ëpp aw fitam rek ragal commencé na am <laughs> yàlla nee na su ma neexoon ma leen loo xam ne da ngeen toroxlu loola te daa ngeen gëm far force gisuloo Abu Jahl ba muy bañ a fay bor jàmbur ba waa Màkka wax wax mu ës ba ti bi ñëwee de ak la mu ànd ak nee na ci bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ma fay ko dafa dof jinne xam na jaxute bu xonk ba wa maa yaatihim masuleen a ñëwal min dikrin ci benn alquran min rahmaani bi bàyyi koo ci yàlla mi nga xam ne mooy aji xéewale ji muhdasin bari bañ sos ak njàngam fii sos ay xarafam sos léppam fii ci àdduna bi ñu ne illa kaanu lu dul nekk nañu ñoom mu'ridiina di way du di way jox ginnaaw anhu ci kiimaan ba loo leen mën a indil ñu jox kiimaan ñu jox ko ginnaaw fa xad kazzabu woon nañu waaye nag lii ñu weddi bu baax ñëwee du baax ci ñoom fa sa yatihim da leen ñëwal am ba uma mujj ak résultat wu wala information xibaaru la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yestasi una doon fonto bihi ci loola lii ñuy weddi ak di contre billaay bu résultat bi ñëwee dana bon ci ñoom dégg nga suñu borom di continuer di wane foofu kàttanam ne awalam yaraw xanaa dañoo xoolul lii ma leen di jàngal nii ilal ardi jëm ci suuf si ñu xool ko xoolub setantal xoolu jëlee kaay leçon waaye waxuñu xool mu jaradu xool noonu rek nga dem mu dem déedéet kam ambat naa bëri bu ñu saxalee fiihaa ci suuf sii min kulli zawjin mu bàyyi ko ci bépp peer karimin bay aji taaru dégg nga de xeetu ñax gu ne ma saxal ko ci du ma ci yem waaye ñax yi ni nit ñi amee góor ak jigéen noonu la ñu amee góor jigéen gi nga fi gis gàncax googu ñuy wax papaay nga gis ñu naan bii góor la bii jigéen la noonu la amee ci gàncax yëpp lu ne yàlla ne na maa ko defal góor ak jigéen boo nekkulee fañ koy bayee nag doo mën a xam ne ñax yi am na góor ak jigéen gàncax yi am na góor jigéen da koy am de mhm. alal ah, moo fi ni tàndarma gu ñuy góor la gu ñuy nangam hmm, ma ngoog inna fi dalika nekk na ci lii laayatan kéemaan pour nga dégg ko ci ni jamono wootee ah gis garab sàngam ñu gereefe ko pour jigéenal ko muy mu mel ni nga ne nga gereefe gisuloo ko jamono wane na loolu léegi te mënutu na am dara waaye boo koy soppi rek Euh, jigéenal ko rek tabaarakallah wa maa kaana nekkul aksaruhum li ëpp ci nit ñi muminin di way gëm lii yàlla jàngal leen di leen ko wan benn par benn wa inna rabbaka naka sa boroom lahoo moom yàlla laa wax al aziz mooy aji not ci nguuram waaye arrahim mooy aji yërëm ku ko neex ëllëg ci àllaaxira kooko yàlla dégg nga ko bu baax léegi nag yent yàlla Moussa mi ma la wax ne dana ko laal laal bu tàng foofu la ci duggee mook Firawna chef d'état bu kon boobu le woon fàttalikul yow sallallahu alayhi wa sallam isnaada ba woowee rabbu ko sa borom Moussa yent yàlla Moussa mu woo ko ci sawara fa nga jàngoon faqla'na alayka innaka bilwaadil muqaddasi tuwee boobu la lay fàttali tey nag dana ko nettali beneen façon nettalin boo xam ne la ñëwutoon fële fii la koy complété alquran noonu lay waxee yëf yi daanaka benn saar ngay dem histoire bi mu topp ko bopp ba geen yënt yàlla yusuf waaye feneen fudlu foofu rek day am lu muy këf fii mottalee ko feneen waaye bu fekkee yënt yàlla yusuf la moom fa yëf ya commencé ba fa mu teeri la ñu ci war a xam yëpp nga xam ne mënuñu kaa ñàkk a xam xam nañ ko fa la ci solo yëpp leer na fa ay waa xam nga fii déggu ñu ko sumil say dàll lan moo nekk sa loxo yooyu yëpp xewul fii ba mu ko wooy nekk an ay an yey iti dikkalal alxawma gaaya azalimin dikkalal gaa yële nga xam ne ñoo nekk ay tooñkat te mooy firawna ak i waa këram ndax joyante leen nag jot nañu jubal rang yi xawma firawna gaa yi firawna yi laa wax ba mu àggee allah yattaquun dégg nga dikkal leen allah yattaquun ndax ñu mun ragal yàlla bokk yént yàlla Moussa ne rabbi yow saa inni man mii kat akaafu ragal naa lool an yukazibuun ñu weddi ma fen looma ma ne li may wax du dëgg nag wa yadiqu la indi woon rabbi israh sadri ma ngoog waxoon nañ la ko sadri sama dënn su weddi ga amee te wala yantaliqu boyul lisaani sama làmmiñ yëg naa ne daal ah waxante gii may waxanteeg yow neex gi mu neex ak niveau bi kawe bu mu kawe su ma demee foofu daal mënumaa wax ak ñoom ci niveau bu suufee wala yantaliqu lisaani ci àllul isharaat dégg nga léegi nag Haarun naa ngi nii di yent yàlla Haarun sama mbokk la farsil yabalal ilaa haarun jëm ci yent yàlla haaruna mu ànd ak man nome ko signel décret nome ko euh, yenantu ndax nag ah ma ko nag su ko defee mu mën a jàpp ci affaire bi ndax man am na lu fa xewoon de te wóoruma ndax son excellence fàtte na ko wala fàttewu ko <laughs> walahum ñeel na waa misra di waa réew ma alay ci sama kaw zambun benn njuumte boo xam ne defoon naa ko fa am na ku ma dugaloon ku mu wàcc comme dugaloon ku mu wàcc su wala la leer insha allahu taala wala gannaaw suba kam dagg are <laughs> mu wàcc dana leer léegi nag comme man tegoon nañ mandat d'arrêt ci man na fuñ ma fekk nañ ma indi waa kaafura faa kaafu tiit naa lool su ma fa àggee nii ci jamono bii an yàqtulun ñu rey ma ah dañ may boom du yem ci dañ ma ci kasa bi waaye rey lañ may def ndax dañ maa xiif xaala sunu borom nekk kat laa déedéet kenn mënu la la tus ah ayca fa zahaba yéen ñaar dem leen yéen ñaar bi ayatina ànd ak sunu ay kéemaan ngeen dem inna man yàlla maakum maa ngi ànd ak yéen ci nu ne ci sama lépp mustami'un way déglu la ñun yàlla la gaayay wax lu ñu ton daañu ko xam faatiya dikkal leen firawna fa xuulaa wax leen na ko su ngeen àggee discours ba ngeen di njëkk a dégaase ci kanamam woo conférence de presse journalistes yi ñëpp ñëw ngi la ngeen koy njëkk a wax mooy innaa nun ñii ñëpp daal rasulu rabbil alamin wax naa la baat boobu mooy déranger Firawna ndawi sa borom lañu ndax gëmloo woon ne gaa yi ne maa alimtu lakum min ilaahin xayri gëmloo woon ne la itam ne ana rabbukumul aala yii yëpp defoon na ko seen bopp yi travaillé ko ci ñoom ba jekku leen ci côté boobu dégg nga ko baax a baax comme dafa jàpp nit ñi di doxal dictateur dictateur la ñuy wax la dictature man nag xaw ma ban laajte man damay maase la rek bërgi nii mu ne ma <laughs> Abdourahmane du woon ma yow daal dëgg-dëgg xaw ma ban arrêt ngay wàcc ma nekk waa xam nga li ma bëgg a wax rek acca jeex na c'est fini <laughs> dégg nga comme ma ngay doxal gaa yi jaay doole di leen def lu kenn xamul yàlla naka nag ñoo ñu ñuy jaay doole laa bëgg ñu moom seen bopp am indépendance sosal kenn ku nañu jox ko xàqam bañ a salfaañe xàkk kenn ane hey arsil yabalal maanaa ànd ak ñun yent yàlla Muusa ak yent yàlla Haarun bani Israil ñii nga jàppootaas ah jàpp leen ay punition yoo xam ne da nga maam not leen dong nga bëgg ñu leen di liggéey lu ne nga leen koy def la ci liggéey bu métti yeewi leen ñu dem jox leen liberté ñu dem <laughs> xoolal Firawna fa mu njëkkee eh, njuumu noo sant ñu newele yow ma yar la fii nga juddoo ci sama kanam di lekk ci sama añ bi di lekk ci sama reer bi taal sama courant bi war ci sama oto yi fu ne nga ne fa naam daraame ba tey dikk nga may jaay lu amul <laughs> sa njàngam bërki dee mu mii safuma de waxal leneen da ngay jéem a wàññi di bëgg a faa yëf yi dégg nga aywa xaala firaam ne waaw yow alam nu rabbika xanaa yaruñ la woon fii naa ci ñun ci sunu kër yi walidan nga nekk gone gu xonq coy gannaaw ba nga fere yéen yàlla mu naan d'accord waa après nag mu nekk wala bis sa saxoon nga fii naa ci ñun min umrika ci sa dund si ni na ayaat yow nekk nga fii ba am trent ans ba masoor nga def fi li nga fi def njëkkante dem dikk yaakaar nga defar nga ba baax daal pour mën ma songu <laughs> Firawna saay saay na wala dégg nga mu ne koo faalta def nga fi yow fira yow yënt yàlla Moussa faalata ka sa jëf ja allati jëf ji nga xam ne faalta la fi def barki démb at yee ci ginnaaw ba ma tegoon la mandat d'arrêt xam nga ko dofuloo dofuloo ji ne jàpp nga def nga la nga fi def <laughs> xam nga loolu boo ko fàttalee gone fekk lam defoon xam na ko muy njombe dana xam ne yaa ngi yaa ngi koy fàttali loo xam ne watul bu sottee du baax ci ta wa ta faalataka lati te wante yow mu nekk yow Moussa hmm. wante yow ñel kaafir yaa ngi bokk ci way gore di yow fi ma jaar ak yow yëpp yëpp yëpp daal la jëndal yére jox la ci oto yi ngay war façon noos gune ne def nga ci sama pouvoir bi dem dikk di ma wax lu kenn xamul yent yàlla Moussa ne ko d'accord yent yàlla Moussa ne ko waaw d'accord faaltuha li ngay wax man la dinaa assumer ba jeex tàkk ah idan koon ci jamono boobu ma koy def waanaa man daal mina dallin bokkoon naa ci ñi nga xam ne xamuñ woon li xew mooy lii ma dikkal nii dikkalagu ma woon te itam ba ma ko defee xam naa ne bu ma sàkkul pexe daa ma sàkkal pexe fa farartu lalli naa mooy daw naa minkum ci yéen lammaa xiftukum ba ma tiitee ragal ngeen dóor ma wala ngeen ray ma dama fee jugee léegi nag ka demoon ak ki dikk wuute nañu defari naa daal defaru naa ba dem naa defaru naa ba bay mën a defare dama bëgg sama mën a defare googu nag sama defare googu ngeen dugg ci biir pour defaru fa wahaba li may na ma rabbi sama boroom xukman xam-xam wa jaalani noome na ma minal mursali ma bokk ci ñi nga xam ne ay yonent la ñu bis ni ki tey su ñu ne décret wane ne man mii ci gaa yi laa bokk soo moytuwul nag bis bu ñu songoyee da nga xam ne ci gaa yi laa bokk yow nag doo gis dara dul kii maa ko fi yoroon démb njàngam bërki démbam mi yow loolu ngay gis wa tilka loolu ngay wax noonu yëpp euh, ni'matun xéewal la tamunnuha yaa ngi koy damoo alay ci sama kaw dégg de xéewal la goo xam ne yaa ma ko xéewale woon ba pare bëgg kaa ndamoo ci sama kaw ànd ak loolu wala nga ne xéewal la goo xam ne yaa ngi yaa ngi ma ko woon ba pare euh, ci sama euh, waaw alaya te mun na alaya di ko damoo ci sama kaw dégg nga de ànd ak loolu yëpp ana abatta ngay jaamuloo bani israil loolu tax yëf yi safuma xéewal gi mënatu tekki dara dara xam nga nit léeg nga defee ko tiraanga fekk na yaa ngi jàpp ay mbokkam yaa ngi def nangam nangam yooyu di ko sabati dara ndax lan mbokki boppam yee wala fi dañuy wax ne génn ab golo ko gudd na waaye loo ci daal mu yëg ko nga sekk ak nit di ko defal tiraanga teraanga ji daal daw koo saf dara dara ndax ni nga mel ak menn mbokkam loolu nag moo dal fira euh, yént yàlla muusa fii euh, dégg nga ak ak ak Firawna foofu dégg nga aywa xaala firawnu moo wax Moussa ne ko waaw yow dégg laa sànq ci sa biir discours bi nga ne rasulu rabbil alamin loolu nag dérangé na ma ci wax ji wa ma alamin ana kan lan waxu ko sax ana kan de lan la ko wax ana lan mooy borom mbindeef yi xaala yént yàlla Moussa ne rabbu samawaati mooy borom asamaan yi wala ardi ak suuf wa maa ma ak li ci diggante bi yàlla mooy borom moo moom in kuntum ndegam nekk ngeen muqinin di way wóolu ne yàlla am na firawna tontu xaala firawna ne moo wax li man xawlahu ñel nataabal yi ko waroon di gouvernement bi alaa tastami'uun waa ndax dégg ngeen li waa ji waxaa <laughs> Moussa ne déggu leen li may wax yéen gouvernement bi déggu leen li xaala rabbukum mu ne leen seen borom yéen ñëpp de pour mu leer ndax yéen da ngeen a gëmoon ne kileen moom mooy Firawna mu jàkkaarloo ñu ne rabbukum yéen ñëpp seen borom rab rabbukum mooy seen borom wa rabbu abaayikum mooy seen borom yaa euh, maam ya al awwaliin ñu njëkk ña kon nag def leen ndànk <laughs> Firawna nag xoola changé na discours bi xoola ni muy ni muy changé euh, bi xaala mu ne inna rasulakum waxul inna rasulanaa de moom génn na ci boppam gis ngeen seen waa ji seen opposition bi moom bokkatu ci wala seen président bi bokkatu ci noonu la politiciens yi def lu muy wax seen waa ji lay wax moom du wax ne suñu waa ji suñu président bi suñu nangam nangam de déedéet seen waa ji la leen kay moomale yéen moom génn ci ne pour bëgg lan bu combat jotee ngir ñëw jàpp ci combat bi <laughs> Firawna noonu la def lii leen politiciens yi nekkee di alladi ba nga xam ne ursila ilaykum yabal nañu ko ci yéen li ma bëgg ngeen xam ne la majnun dof la kii daañu ko yóbbu ci hôpital yi neurologie yi lañ koy wax ak yooyu nu xool xelam xaw ma neurologie lañ koy wax xaw ma nuñ koy waxee noonu neurologue <laughs> boobu de barki démb ci coowal gaa yi laa ko xamee mu ne kii ñu leen booleeg nii seen waa ji ab dof la foog ñu yóbbu ko hôpital ñu xool ba xam ndax wér na wala wérul léegi moom ab dof la ko bëgg a jàppee xaale yent yàlla Muusaa ne rabbul masriqi sama borom daal moo moom penku yi wal maxaribi ak sow bi wa maa baynumaa li ci diggante bi in kuntum degem nekk ngeen taaqiluuna di am xel mu ngeen xalaatee pour mun a nangu lii may wax firaaw na jëlaat <laughs> ñi ngi jokkalante de xaala dégg nga maam euh, dana mel ni euh, kële nu mu tuddati euh, France ba ak opposition ba ñu def seen dialogue yooyu tubaab yi invité leen ñuy lay xanaa dana xaw a nuróog loolu de xam naa ne seen débat yooyu ñu def waaw waaw deuxième tour bi ndax ku jox sa morom xaala Moussa ne xaw ma Firaaw wax ne Moussa la init taxas sa giñ naa boo fi jàppee ilaahan yàlla xayri beneen budul man bu ma déggee ne ngi fi ut beneen président wala geneen kilifa gudul man la ajalannaka giñ naa ne dinaa la def mel masjuniin ma signé dégré nga bokk ci ñiy tëj ca kaso ba dañ lay arrêté léegi dugal ci kaso bi coow li jeex yéen yàlla Moussa tontu déedéet Firaaw moo ko ne xaala Firaaw ne waaw yow. awala jituka wala xa Moussa fan kon Moussa moo ne ko awala jituka xanaa indiluma la bi shay'in ci mbir moo xam ne mu biinin luy wane ne yenant laa man de indil naa la fi li tegte leen ay man yenant laa xaala firaaw na ko faati indi ko bihi ci kiimaan ba ngay wax in kunta ndegam bokk nga mina sadiqiin ci ñi nga xam ne dañuy wax dëgg bu fekkee li ngay wax dëgg la am nga ay preuve teeral preuve yi ñu leer ñu xool hmm? rek fa alka sànni na ca saasa asaawu yadwa moom yent yàlla Moussa fa ida ci mbetteel ci noonu hiya moom yadwa soxbaanu mu nekk ñàngoor moo xam ne ma nga taxaw yëkkati bopp ba dégg nga maam mm, sanni jàbb yi noonu ci kaw mu biin ko gis xam ne li ponk lum la <laughs> mu julli dul nijaay mbaar joojaade kenn mos naa dégg lii wa nazaa dugal na wala rocc naa fan rocc na mooy génn na yadahu loxoom ba ca jibo ja mu génnee ko ca poos ba fa ida ci noonu hiya moom loxo ba bayda mu nekk lu weex tar li naasirin ñel ñi nga xam ne ñooy xool te xam nañ loxo bi weexutoon tar tar tar tar baag ci dayee weex nii xam ne na woon dof la dof da la mën a njabar dof koy du njabar xanaa du ànd ak xel mu muy njabaree nangam nangam wala déet léegi soppiwaat na ko di gisoo xaala firawnu wax ne lil mala'i ñeel mbooloo ma mooy nu taabali xawlahu inna haada naka seen waa ji ngeen gis nii la saahirun ab jabarkat la naxekat la dóorkat la alimun bu mën nu nuy dóoree njabarkat bu mën njabara ngi nii ndax gis ngeen yat yi mu sànni mu soppali jaan ñëwee déete waaye mu dogal loxo bi ci jibo ji génne loxo bi waxtaar ak mën a njabar te lii nag lu tax mu koy def da leen a bëgg jële ci pouvoir bi rek képp moo yitteem ci lay xëy ci lay gont dégg nga opposition la boo xam ne bu violent la ni ngeen ko gisee nii vulgaire na trop du bëgg na an yuxrijakum mu génne leen waxul an yuxrijanaa de an yuxrijakum yéen mu génne leen yéen waa réew mi min ardikum ci seen réew mi mu nar kaa defee nag naru ko jaar ci élection yi leer waaye dakaa nar a jaar bi sihrihi léegi nag comme ñëw ngeen conseil de ministres fa maada taamuruun ana lan ngeen may xalaatal digal ma ko ba xam ban plan la ñuy teg ci politique ba mën ko daaneel lii la de xaalu gaay na ko faire attention ah arji u teeylu ko nag defal attention de ndax boo ko songee nii te xamuloo li mu yor lan la da nga daanu waakaaw ak mbokkam mi léegi nag nooy def mooy comme dëkk bi bëri na ay préfet sous préfet euh, Tidiane préfet sous préfet ni ñu koy waxee ci wolof bër gi démb laa dégg benn waaye man loolu baat boobu rek calaw ak dee calaw hmm? man baat boobu bër gi démb laa dégg ci wolof dee calaw mooy sous préfet bi calaw mooy préfet bi mu ne ah loolu de man maa ngi koy door a dégg man xam nga waaw man kay bërgi mu laa dégg benn waay nan wolof la nan am na lu muy tuddee de wolof la tudd ci boori tubaab bi la dëkk nag waaw ak dee calaw waaw <laughs> dégg nga dëkk yi am na noonu am na yooyu nañu yónnee ca ñooña nga bind ay leetar yoo xam ne bu àggee ci ñoom dañ lay toppatool sëriñ yi nekk foofu su ko defee ñu mën a ñëw jàkkaarloog yént yàlla muusee mii ak lii mu indi wabaas yabalal fil ni ci dëkk yi mbir moom ñuy way dajale jabarkat yi fa ne su ko defee yaatu ko daañu la dikkal bi kulli saxaarin ci bépp jabarkat alimun bu mën jabar lool nga xam ne da ciy am ay taalibe di leen yeewi di leen ci seexal di leen ciy jaasal ak lu ne mu leen cay def ba ñu defee lii fa jumia daje leef na as saxara jabarkat yi li miiqaati yawmin ñel rendez-vous bis boo xam ne maaluum bu ñu xam mooy seen yawmu ziina ba boobu ñu jàngoon bërki démb moom la junj foofu rek aywa ba ñëwee fa la ba ñëwee asaharatu jabarkat ya ah aywa waqiila waxeef na li naa si ñel nit ñi hal antum ndax yéen mujtami'un way daje ngeen laal la naa ndax amaana ñun de bu fekkee ne sëriñ sii ngeen ñu indil di jabarkat yii gañe nañu nattabia ñu topp a saxar sa jabarkat ya in kaanu ndegam nekk na ñoom jabarkat ya hum ñoom alxaalibiin di way domine yent yàlla Muusa ci lii mu indi kon bu boobaa ñun daañ nangoo nekk seen taalibe fa la maa jaa ba ñëwee ak saxaara jabarkat ya ñu ne d'accord son excellence moo ñu convoqué pour ñu ñëw bokk ci yëf yi waaye nag mbir mi mënul demee noonu ndax mbir mi laaj na ay sarax laaj na ay sacrifice laaj na laaj na ba mu bëri comme laaj na ba mu bëri nag sunu weexal ñëwagul ñu nag son excellence dañoo bëgg bu ñu gañee wate euh, yi élection yi nga ne ma ñu ay député ay directeur dégg nga maam ay ay ay bam jeex ay ministre ay ay bam jeex lekke kaay xaalis yi daal ngeen na ma ñi ci benn yooyu comme yi senegal am fii ñaar yi nga xam ne kenn xamul lu muy tekki lan la man yooyu du seen jëriñ maanaam loolu pour nit ñi xam ne lii lay jëriñ man loolu est ce que xam nañ nit ñi xam nañ ci njëriñ yi population est ce que xam nañ yi comme ni ñu xamee maire li muy jëriñ xam ko sous-préfet ne boo fa bëggee dem lii nga fay wuti yooyu ñaari lekke kaay xaalis yi yooyu moom <laughs> daal man gars yi daal gars yi daal jaaxal ma xam naa ne su ko fee euh, ñu ne firaaw na nang ñu noomee ci lekkekaay xaalis su ko ñu mën a am salaire nag ñun tamit nii rek la di gars yi noonu rek lañ fi falee gars yi comme bokk nañ ci combat bi jàpp ci ba affaire bi taxaw ah ñoom it foog am foo leen déposé ñuy fayee ku weer <laughs> billaay tappale yàgg na fi a inna lana ndax am nañu laajiran ak pay in kun naa ndegam nekk nañu nax nu nun alxaalibin ndegam bu fekkee ñoo gañe ndax bu boobaa daañu am salaire wala duñu am salaire xaala firawna ne naam waaw waaw bañ a am salaire kum yéen idan koon bu ngeen jàppee ci combat bi ba ma taxaw de la minal muqarrabin daa ngeen bokk ci ñi nga xam ne dañuy jege ci gouvernement bi dugg ci lekkekaay koppar yooyu <laughs> am oto am yëpp maa leen defal lii am passeport diplomatique yëpp ngeen am ko ak caisse noire waaw kay yaa ko xam ak am caisse noire itam <laughs> man daal gars yi bëri nañ caaxaan xam naa kaala xaala wax lahum ñeel ko Muusa ba ñëwee ak seen waajtaay mu ne leen alqu sànni leen maa la nga xam ne yéen antum yéen mulquuna way sànni ngeen ko lii ngeen defar pour sànni ko ay ca sànni leen ma gis ñoom itam wax naa la dañoo ormal yént yàlla Muusa njëkk a sànni pour yàlla feeñal luy dëgg luy dëgg comme niñ ko jàngee woon faal xaw sànni nañu xibaalahum seen buum ya ñu defoon godron ya bàyyi ko ci naaj muy battarndiku ngay imaginer lii jaan ji battarndiku la wa isiyahum ak sen yad ya waxaalu jamono ba ñuy sànni nag ñoom sëriñ ya au lieu que Firawna mi nga xam ne moom moo leen yaakaar ñoom ñu yaakaar Firawna lii moom xam nga lii kenn xamul noo koy firee ñoom Firawna ngi jaaxle jaaxle bay ñëw ñi ñoom di sàkku ndimbal ci ñoom ñoom it ñu wëññeekuwaat di taasu ci barke Firawna te Firawna seen barke lay taasu ñoom <laughs> lii de xam nga du leer waaw waxaalu ñu ne ba ñuy sànni bi ay zati firaaw ñoo ngi koy sànnee ci barke firaaw na firaaw na si saa si seen barke yaakaar yéen a ko ci mën a génn yéen ngeen lii du gaaw a leer innaa na innaa nun la nax nun laa wax alxaalibuun ñooy way gañe tey tabaarakallaahu <laughs>